internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk yu wér ci réew mi ak ci bitim réew. yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal la tënk ba xibaar tey lundi di 16 janvier 2023 ñu tàmbale koog xibaaru biir réew mi. jamono yoo xam ne nag ñu ngi jooy ñi loru ci accident bu siikilo te noppeeguñu beneen accident moo am bés ba tey bii euh, fële ca yoonu Louga kon yoonu Louga diggam ak euh, fii di sakkal ñu ne nag lu toll ci euh, dix-neuf personnes ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan buñ sukkandikoo suñu naataango yu waa RFM ñu ne nag li waral accident bi nag ab kaaru njaganjaay boo xam ne horaire la kon moom moo mbëkkanteeg ab camion ñu ne sax si jamono joo xam ne benn ci oto ba benn kon si ñaar oto yooyu da doon moytu ab mbaam boo xam ne kon eh, da doon jéggi lii di tali bi bu weesoo nag fukki nit ak juróom-ñeent yooyu nga xam ne kon ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ngi naan sax kon keneen yokk na si muy ñaar fukk am na it kon yeneen i nit yoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu. njiitu réew mi Macky Sall àdduna jëmale ci boobule accident moom nag ci ab kon euh, bind boo xam ne def na ko ci page Facebook mu ngi naqarlu euh, li ni mel euh, te sax kon di fàttali ne kon mesure yi nga xam ne kon dogal yi nguur gi jël ngir xeex accident yi lii day wane ne rek kon war nañ ci gën a taxaw ngir daal kon li ni mel mën a wàññeeku ci Sénégal mu ngi jëbal nag njaalam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la seen ñooñ kon faatu ci boobule accident te di ñaanal euh, ña ca am ay gaañu gaañu ñu wér ak jàmm. Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye nag boo moywul dinañ leen yóbbu ci chambre criminelle ngir àtte leen fa euh, ci dossier Sweet Beauté li ko waral nag procureur euh, moom moo laaj ki nga xam ne moom mooy magistrat instructeur. instructeur mu amal ca ñoom lañu naan mise en accusation bu dee njiital Pastef yi nag kon ci mise en accusation boobu ñu ngi koy toppee mbirum viol ak menace de mort bu dee nag kii di Ndeye di patron bu Sweet Beauté ñu ngi koy toppee mbirum incitation à la débauche diffusion dimage contraires aux bonnes mœurs ak complicité de viol ab étudiante sénégalaise bu toll si ñaar fukki at ak benn moom nag euh, la ñu violé fële ca euh, Turquie euh, ci bésu vendredi bi ñu génn kon ñu ko amal nag di ñaari turc ñu ngi ko amalee nag ci ab usine de fabrique boo xam ne sax ndaw si dafa doon liggéeye ñaar ñooñu def ñaawteef yooyu nag teg nañ leen loxo wante it la ca doy waar mooy ndaw si tam dañ koo tegoon loxo ñu ne nag la tax ñu jàppoon ko moom mooy da doon liggéey te sax amul kon autorisation euh, pour def euh, boobule liggéey wante nag ca ginnaaw ko kon euh, bàyyi woon nañu ko ki nga xam ne nag moom mooy ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur moom àdduna jëmale si mbir mi nee na nag ñaar ñooñu nga xam ne fi mu nekk nii yoon teg na leen loxo ñoom waa Sénégal wax nañoo ak ambassade Sénégal ba nekk foofu la ci Ankara wante itam wax nañoo ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yu Turquie ngir daal ñoo ñu def boobu la ñaawteef ñu yóbbu leen ci yoon àtte leen te daan leen daan yu métti. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek euh, Burkina Faso foofu nag lu toll ci juróom fukk ci ay jigéen euh, lañu fa kidnappé. ña ko def nag eh, di ay eh, ñoo xam ne dañoo jàpp ne kon ay terroriste lañ ñu ngi ko amalee nag eh, fii ñu naan Arbenda nekk ci noor bu Burkina Faso bu ñu sukkandikoo ci waa AFP ñoo xam ne sax kon ay autorité locale lañ nekk ci boobu la dëkk ñu ngi xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñooy l'armée ba ànd ak ay supplétifs civils jotoon nañ sax amal ay opération kon wante nag loolu juróogul dara tàmbaleeg réewum Mali foofa nag euh, ñeenti gendarme lañ faray ñu ko amal nag ñu njort ne ay terroriste lañ mbir ma nag mu ngi am démb ci dimanche ji euh, ca ouest bu Mali bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie ba ñu ne bu weesoo loolu nag am na si ay oto yoo xam ne sax euh, ñi def ko ñaw ñaawteef yi yàq nañ leen amit ñaar yoo xam ne kon yóbbaale nañu ko wante ba léegi gendarmerie xamle nañ le jot nañu faat ñaar ci def ñaw te ñaawteef yooyu amit ñoo xam ne teg nañ leen loxo. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon moom la ñuy jeexalee muy nag fële ca Népal bésub tey bi nag ñoom dañoo nekk ci deuil national euh, gannaaw bi nga xamee ne nag lu toll ci 68 personnes dañ faa ñàkk seen bakkan ci ab avion boo xam ne kon dafa daanu avion bu nekkoon ci compagnie bu Yeti Airlines bésub tey bi nag ñu ngi doon wéyal sax. di seet euh, ndax dinañu gis ay nit yu dund ci li nga xam ne kon euh, foofu la avion bi daanoo wante nag dañoo sax amatuñu yaakaar ne kon dinañ gis nit kuy dundu ci boobu boobule accident. liñ leen tey ci xibaar bu seen teewlu dañ jox daje ëllëg jaa jëf.